aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim fas yéene tàmbali liggéey bi rek ci xaside yi kon xam naa di ñaan Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér nañ ko daan defee rek di ñaan tamit xalifa général des Baye suñu moon wende yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam kon xam na naa dañuy jubluwaat ci émission rek leeral njàngum xasida <coughs> tey di ñëw ci daaru nga xam ne dañu ko doon laaj première daaj bi ak deuxième daaj bi ndax bëri ñu ko gars di jàngee noo xam ne dañ kaa xaw a yàq ndax dañ ci topp seen neexaay baat ba xëy na njàng mi yaru gam waroon yaru dëgg dëgg dëgg day des waaye gars dañ ciy topp finesse yàlla sax ñu xaw a nan la koy jàngee beneen gàmm kon <coughs> daaj bi nii la ahbabtu rabbal alamin mal amin wal amin wan qadasi ruhul amin likal kalib wa jasadi boo na daaro bi dafa xaw a dox tuuti xawata dire ko mais lu ñu gën a dem ci njàng bi rek njàng moom dana dana dana ñëwal boppam daal mais njël bi mi ngi koy daaj dafa war a xaw a dem tuuti ahbabtu rabbal alamin malamin walamin wanqada zikrullamin likal kalib wa jasadi nga xam ne daaru ñaari kuréel la waaw ñi benn kuréel gi day jël beneen bi di aw moo tax njàng mi dafa sofaloo daal daanaka mën nga ne dëbbeeg aw la rek waaye mën nañ kaa tuddeel waaye njàngum mbooloo la waaye ñaari kuréel la daal <clears throat> naajeytu sal harsil hasim bilxubbi ma durin nazim ولياك نبي عزيم wasanani anu sadi muy dem ba pare borom baat bu xaw a siggi tuddi ko yóbbu kon ñu ma ñëwaat ci naajeytu zal harsil hasim bil hubbi ma durrin nasim ولياك نبي عزيم وسنهني عن سيدي يخجي نبي توحيد الأحد قلبي يا رب الملتهد ولم يكل في نبوخ ولا خجي xëy na kuréel yu bari ñoo ngi jàng daaru waaye njëlbeen bi duñ ko indi dañu indi tolluwaay daal dañu indi sànd yi waaye njëlbeen bi noonu bu mel ne lu lu lu lu lu lu maase noonu yaru noonu day am solo bu ko defee bu ñu ne ba ci biir na ñi nga xam ne dañoo senji ak seen baat jekku lool ñu koy ñuy jaar ci kaw tàmbali bur naa bi tawhidil ahad قلبي يا رب الملتهى ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلي قد في السفر قل وهب بسفر مستغنيا عننا فار بجنده في خلدي après ñu joxe tolloo bi siñ bi lam yalhuni mubarizu wa baydu rabbi barisu iblisu la yubarisu jundal hasib zil lam yanhuni am na ñuy jàll ci di def ay yeneen tolluwaay waaye yooyu ci am sax waaye ku ko mën rek na def lam yanhuni man ixtaarat aw man li xayal bi marat wali yaxu du fil xayraat rabbi yaa ma lam yujhadi waaw ni ko gars yi di jàngee jamono ji neex na lool waaye bu gën a tënk tamit dana am solo ndax parfois damay dégg ci jàng yi da gis ñoo xam ne dañu topp neexaay bi ba ba day dañu xaw a génn tuuti daal dañuy créé dañu mel luy créé woy ma ñëwaat ci allahu ka na li bi borom baat bu saññi bu ko nee ne nali bi ma génn waaye bu mën naa maase rek ci ëpp ci kuréel gi di maase rek allahu kat nali bi ma yubxisu la lansa bi ma xadan wayli surtout foofu noonu foofu buy dox noonu dara am solo lool allahu kat nali bi ma يبغي سولا لنسى بما خدا ويلي xootam bi ma xaada wa xëy foofu tamit mu wa xëy rara xaadi teg teg lay doon hadiyatul lahil saaqali xayri yàllahin wal yawma bil lawul yuhin man saahu wa fi qadi maddali yal lahul busar bijaayi sayyidil bashar waliyayum ناو النسر لم أنه ما لم يفيدي gis nga muy muy am attaque daal وصباخت لي بالقلوب منصرفا بسفدي ناجيت gis na jëli muy jóge ci kaw ناجيت ربي الكريم بكتب ليس تري أنوارها وليار ahmadu xayra safadi noonu rek day day jóg day day mel luy bond rek allahu rabbul alamin صلى على wal jasadi gis kon bu melee noonu dana am dana am solo lool bu ko defee njàng mi am na ay am na ay yeneen tolluwaay de comme bu ñu ñëwoon fusti bi sar fi lxasanat sayidata limusinat mariama fub timuqinat hindalasi lam yu duraki nga xam ne yooyu mën na di ci ñoom mais li ci ëpp a def daal mooy mooy topp topp woy yi topp woy yi ba yow a créé say woy bopp day xaw compliqué daal kul bayakum nu laki xat xayra rasul boobu tamit mën na da ñëw ak قد خير رسول للانتقاد وبك فابساس انتقاد ولم يكن بمشركي mu yaru daal wàcc bër yi dafa war a dafa war a dafa war a dëju lam yaxfa dal muminin كونك بل مزهين يا أم خير محسنين محسومة من muy dem kon loolu bu ñu koy da solo beneen bi samp comme bu ñu ne فزت بسار موسينا مريم فوت مقينا عند الذي لم يدرك كن فيكون لك قد خير رسول الانتخاب وبك باس انتخاب ولم يكن بمسرقي لم يقبح دا المؤمنين كونك بالمسعينين يا ما غير محسنين معصومة من سراكين يقولون لمديك مع الكفات لن قد هوكي فزت بي للمديك كل تخيب yen mudriki kii nga kon dafa war a yaru maanaam jàng mi dafa war a am solo daal waaw ñu ngi koy jànge dafa war a nekk lu mage waaw kon loolu ñu koy ñu koy bàyyi xel daal bu baax a baax ñu koy bàyyi xel baax waaw ñu koy bàyyi xel bu baax bu ñu ko bàyyi xel dana am solo kon après dañu jàll ci xuddaay laagi kon niñ koy jàngee moom tamit ak tamit kuréel daanaka dañ ci dañ moom tamit woy ci la ñu gën a ëppale parfois dañ ci ëppal ba ba ba day maanaam dañ ci génn daal <coughs> comme mu ne xuddaa ilaahi sahsaa masaani fu mu ne da nga mi day génn day génn baax ñoom dañuy génn baax huda ilahi zahzab masaani muzahzab wa birajalin nasab nasan nasab la sulami القلب من امتلا علما وخيل loolu tamit daa war a génn علما وخيل خلا waxat gis nga boobu tamit jaar boobu suuf tamit bu ñu doog a daaj daa war a ñëw amul waxat mais loolu bu ñu doog a daaj dafa war a ñëw kenn goom waxat saraftu dixla gis nga loolu tamit daa war a ñëw مغلوبة بسلام زبا زبا لغير الضلال محن يصوب للحال وليس ينحن احتلال ولا دواء الولام يخجل هدية باقي المقيم تقول لي أنفقت وسرت فر حتى الوقت بعملي وكلمي إلا يقى لولتمي داور نيو إلي قادس الورى ممالكا للسوارى loolu tamit daa war a ñëw baax wali fuad dinawara mubarraan min alami lam yaluni daawul jasad ولا قيلا ولا عاسات فيما بيب هما كاسات في البيخ أو في الصلام surtout wàcce bëri قال لي الباخي ساما ولياتي يبساما بغراب ما آمن بمنتخب السلام gis nga loolu bu yaroo rek day neex صلى وسلم بلا نهايات ما القبيلة هم رعالا من أسبل ستري wa la xalami kon gis nga wàcc bëru yi dafa war dafa dafa dafa war a dafa war a ndey sàndal yasuru xayr al mursalin xatiyama hilkasali gis nga hilkasali bi موساني مبصرا لم يكلمي دامي دادي والخلام حامل جواب من الكلام بما يوسف زو السلام عن مؤمن ومسلم léegi nag bu ñuy rim xasabtu xaatan li bu ñu neexee mën na jóg waaye li ci ëpp ci kuréel gi rek bu leen neexee ñu jaar ci suuf xasabtu <coughs> xaatan li siwa rabbi yaalam yanhu sawa wa innani uri sawa sabili rabbil alamin tawfiq gis nga ni ñu koy jëlee tawfiqu rabbin nasaa foofu daa war a bir allah xafantasahab wali siwaaya sasahab kulla saxan wa sullami kon gis nga farriha xayb البصر بقتي المبصر وقداني ببصري من ربه المفضل يقود daa war a aju ci kam يقود رب العالمين لي بخير العالمين سر الكتاب بالآمين وكان لي بالأفضل kon gis nga noonu lay nga bu yaroo noonu teew da indi way dana neex te doo génn gàm bi daal kon kon ñu leeral sam bi <coughs> buñ ne yaqud yaqudura yaqu bu ñu يقول رب العالمين لي بخير العالمين سر الكتاب بالآمين وكان لي بالأفضل رسولنا محمد صلى عليه الصمد مع سلام يحمد وصف بالمفضل بركات مع الوالي زان الربيع الوالي بالمليك المقويل منسابي تفضلي يسر أحمد المكيم قتل زي لو ركن لو كما ليسكن لمن كفر kon dafa war a dafa war a ndeysaan daal surtout nag di yasuru ahmad almakin yasuru ahmad almakin xatilasi lorukon lokaman liyasukon liman ni muhdili على النبي خير الأنام صلاتها لعلم لعلمنا loolu daa war a ñëw لعلمنا بهذا نزحتنا ورا خاد وخديلي أزكى صلاة وسلام رمت من باقي السلام لسي جواب من الكلام أحمد نور الكمالي للمن للمنتقى المؤملي معه الفير المجمل رمت من المجمل صلى معي المكمل أزكى سلا ميس الورى على جميل صورت مقدما منورا خير الورى المزمل وجه النبي الأفياد يحجل بدرا في يدي وللحال به يدي مدتني أمالي والدرس للمنتقى زهزا نارا تتخب لخير ما لينتخب وليعرم مهمالي للمصطفى المبصري بقتي المبصر ما غداني ببصري من الحال المفضل kon gis nga loolu mooy daaro bi ko defee ñoo koy jàngal muy am solo muy neex lool waaye parfois dañ ci dañ ci xaw a dañ ci xaw a ëppal ci xaw a ëppal loolu maanaam ci woy yi daal dañuy dem ba ba jéggi woy kon ñu bàyyi ci xel bu baax te gën a góorgóorlaan bu baax ndax lii lépp na lu koy may rek mooy nafar maanaam daje di répété waaw di nam baati di jàng-njàng mu yàgg te di àndandoo la di jàng ndax dana tax ngeen am harmonie ndax kuréel moom bu ñu àndee di jàng rek saa ñu toogee di presse day mel ne benn kàddu mooy jàng kon loolu dafa am solo lool ñu bàyyi ko xel beneen ñu bàyyi war xel suñu diggante bokk talibe ju gën a jàppalante gën a suturalante gën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa kenn ku nekk ni nga jàppee sa bopp nga jàppee ko sa morom ndax saxaaba yi noonu lañu doon àndee kenn ku nekk na nga umbal sa moroom bàmmeelu biir waaw ndax suñu borom képp ku mu suturaal rek na ko suturaal ndax si Saali Mbàkke daan na wax sa morom de buy wuññi sa ayib dalaa bëgg a wér waaye yàlla buy wuññi sa ayib dalaa bëgg a jéggal kon nañu jéggalante tey jëllalante tey suturaalante waaw ah, nañu suturaalante surtout jamono ji ñu toll sutur dafay manqué nañu suturaalante surtout ñun jànkatu xasida ndax defe naa mbokk gi gën a yaatu mooy jànkatu xasida waaw ah, jànk ndax saxaaba yi àggoon nañ foo xam ne am na ko ne woon sama soxnaa ngi nii xoola ku la ci doy ma ma ma yeew ko nga jël ko ba yàlla wàcc aay di leen tàgg kon loolu nag buñ ne ñun tamit saxaaba yi ñooy suñu bàyyi ci diine ba bare doxin boobu doxewuñ ko waaw kon loolu tamit day des kon nañu fexe di dimbalante di jàppalante ku ci am jafe na ko moroomam jàppale ku ci am mbégte mu ànd ci moom ku ci lépp rek ndax loolu mooy ànd suñ mën taxaa gis nga taxawaayam taxawaay boobu la taxawee fu mu dégg-dégg jafe dana fexe ba saafara ko kon ñun suñu biir tamit nañu fexe bay dimbalante tey suturaalante waaw ndax sutura mooy lépp waaye bu sutura amatul rek dara nekkut fa kon ñoo ngi tuub baax ci kàddu yi barki borom Tuubaa